tabax bu am solo tabax boo xam ne day nekk bloc léegi li ñuy bañ te son excellence di ñu si jàppale mooy ne kii warta jóge fee yàlla may ko mu mucc jigéen bi ñu gàddu doom bi doxaat ay mètre war a dem ci lu ñuy wax couveuse wala daal lu mu munti doon pour pédiatre wala infirmier boo xam ne spécialisé na di ko seet moo tax ñu dañuy def yëpp bloc bloc nag dafa am lu mu àndal mbalit mi du dem nu mu ko neexee day am gestion des déchets maintenance bi ouverture bi xam nga léeg-léeg suñu bu ñu nekkee xale ñaan kër daa war a am courant d'air mooy ubbi bi ak tëj bi donc dégg nga sànq ma wax ko du ko mu neex nu la neex nga tabaxee moo tax tabax bi dañ ko bugg a teg ci yoon. équipement yi programmé nañ ko mu am équipement yoo xam ne yu mucc ayib la bien que day nekk centre de santé bu loolu paree dañ teg ci li ñuy wax personnel mooy ña fay liggéey liggéeykat yi nag nekk ay techniciens. moo xam ban niveau la mais dina ay acteurs communautaires ñi nga xamante ne ñoo ñuy jàlle suñu waxtaan ba si yéen ci ngeen xam ne ca rawul yéen ci acteur communautaires yéen waa presse ak communication